Diop vice président ah. regroupement de la région de Thiès. sant yàlla ndax ñun ay ndaw lañu am lu ñu naqari suñuy kilifa wax ñu nii ni gaare leen ñëpp ànd gaare Sénégal partout nag du fi kese waaw loolu daal wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla ndax comme ay chauffeur lañu ñu teg ñu loo xam ni diis na gann baatunuñ ko moo tax duñ ci jëm dara. mooy suñu kilifa te moom la ñuy déglu ndax alsaan bu ko neexoon tëdd ca këram député la maire la mooy syndicat bi lu mu dunde walla lu mu dundal ak njabootam kese noo toog koy wax kon kom ñun ñoo tax muy wax ak xeex ñun ñoo ko war a féete kanam mais loolu yëpp àndul loolu yëpp kii na waaye moo nu féete ci kanam kon moom rek la ñuy déglu. état dégg naa dégg naa laa wax woo na ko mais Alsaan bala muy dem faw mu dafa am ñu mu ko séqal ñu mu ko séqal faw mu waxtaan ñoom ba pare ñun daal ñu ngi déglu Alsaan ci bépp boor nag bu nee dem leen ñu dem bu nee taxaw leen ñu taxaw ak suñuy président de groupement waaw fii nag Pape Diop moo fi nekk suñu président waaye moom Alsaan lay déglu crève moom ñun li ñu ci bëggoon am nañ ah, ko ñun moom li ñu ci bëggoon wax dëgg yàlla am nañ ko ci oto yi daal gaare nañ amul benn auto transport en commun boo xam ni man de fi ma jóge fi ma jógee maa ngi dëkk Kër Moussa oto yi sax dañoo gaare camions sax dañoo gaare que lii moom foog naa ni garage bi ku fi ñëw tey di nga xam ne chauffeur ku jar a jox cër la kenn jaayu fi ndekki kenn du fi jaay añ amu ci benn activité boo xamante ne ni dox na kon ñun chauffeur yi lépp lu fiy dox ginnaaw yàlla <laughs> am nañ ca loxo bu diis. benn baaxu ci benn baaxu ci amu ci bu baax. amu ci benn conseil interministériel. voilà ñu leen fa teewaloon. non non ñun kenn la ñuy déglu muy alsaan gis nga fi mu nekk ci dem dafa am ñoo xam ni bon bëgguma du ma tudd turu kenn. waaye tey daal ñëpp xam nañ ni alsaan bu ne Sénégal dem leen ci transport ñu dem. bu nee Sénégal taxaw la ñu taxaw. déggoo eh, eh, eh, mais lii moo raw dépasse moom mu nga tëdd këram euh, maanaam moom moo ñu tax a ñime alsaan moo ñu tax a ñime alsaan moo tax ñuy joxe dépasse ginnaaw yàlla waaw parce que moo ñuy moo ñuy moo ñuy moo ñuy xeexal alsaan mooy suñu lépp ci transport alsaan fayuñu ko alsaan dañ ko waroon dañ ko waroon di fay alsaan kenn fayu ko kenn defalu ko dara. xanaa mm, lu mu teg ñu lu ñu attan. bu ñu tegee lu ñu atteen ñu dem ku ñu teg lu ñu attenul foo jëm feebar te moo ko mën a faj feebar bu ñu ci dal état moo ko moo moo maanaam moo ñu pigir pigiru jàngoro bi waaye moo ko mën a faj jéemuñ ci dara ñun nag lépp ñoo ko jéemal suñu bopp ñun état ñaanuñu ko dara amul luñ ko ñaana xale bu ndaw ngay gis mu dem banque leb fa xaalisam soit këram la tayle wala toolam la tayle dem banque wala otoom dem banque ñu lebal ko xaalis mais kooku foog naa ni am na beneen am na beneen responsabilité lu may lu may di foye boppam wala muy foye alalam. ne la Sénégal gii ñu nekk chauffeur professionnel fii la am Sénégal la tali yi dañoo muuma amuñuy tablo benn ñaari bi tali ba xat na gis nga tali bi bûche deux mètres lay jël ñetti bûche foog naa ni fii ak fii ak génnal pire tali bi amatul benn trait bu weex boo xam ne dina la wax dara ci tali bi amul tableau donc ñaari bus yu daje bu bu ñu sàgganee seen rétroviseur laalante donc kon waxuma la dara nag sëñ bi chauffeur ay jàmbaar lañu chauffeur yi lu ñuy wax ne lu waykat bi ku leen gërëmatul xawma lan mais chauffeur yi daal gàcce gaala ma ñoom gis nga buñ ko mënoon a faj lii mu jeex dañ ne nag gis nga golo boo koy dax muy daw ba yàgg mu sës ci garab day taxaw te boo ñëwaatee mu dal sa kaw su mu nekk tamit sës nañ ci war gaynde ñu ngi déglu nag ñu ngi déglu ñëpp mais ñu ngi déglu suñuy kilifa mais pour war gaynde yi moom non sës nañ ci duma la wax nag nii la ñuy def que dañoo am ay kilifa am ñu ñuy déglu waaye li wóor mooy war gaynde yi moom koo xam ni ñun yaa ngi nii ci garage bi fii la ñu tënk fii la ñu am droit euh, départ fii la ñu fii la ñu am droit dugg mais fii la ñu am droit départ ñoo dem fa dem mais cla mais war gaynde yi yaa ngi ci dëkk bi gis nga leen sës nañ ci ñoom. waaw loolu yëngaluñu. Hmm. état bi tëj nañu ñetti weer yoo xam ne suñuy pneu per na suñuy batterie vide na kon kay <laughs> semaine bi ñuy taxaw mais loolu yaakaar naa ni loolu mënuñoo yëngal. Omar Tall ñu gën maa xam ci Ndoye Tall le responsable ci kaar de euh, seen représentant fii nii. liñ leen joxoon bare ñun. kaar yeeg d' accord nañu tuuma topp nañu. waaye nag euh, état deful devoiram li nga xamante ni war na koo def ay responsabilité am jëlu ko. mooy. mooy def tali yi baaxul. et dañoo seetaan ñun état dañoo jël bàyyi ñu boppam seetaan ñu di concurrence ak ñun war gaynde état moo ko fi favoriser te moom day war gaynde oto état oto état yi taxaw fi ni bii di taxaw amuñu licence amuñu amuñu euh, carte grise amuñu benn permis moo ci nekk. bisu Dakar dem di kii taxaw fii kenn am war gaynde moo fi am. amuñu plaque numéro amu numéro benn chauffeur bi kese kese tey bu defoon accident boo ko beneen pièce boo xam ne oto am na ko benn pièce bu oto bi am amul génne nañu pompier génne ñu Colobane dem samp fa dem dikk dèjà toñ tooxal nañu dàq nañu ba amatuñ fu ñu laaxatuñu mu wëlbati ko jël war gay ne tekk suñu kaw tey bi ngi nii ana tra ana ñi nga xamante ne nañ ñoom ci seen jëm bopp ay syndicaliste lañu oto nañu bu ñu taxaw dañuy liggéey xanaa ñoom ay syndicaliste dem dikk lañu kon ak ay syndicaliste war gay ne lañ ñoom tey war ngay na nga gis mu daw dem di kese beneen auto transport en commun buy daw ci Sénégal amul 14 régions Sénégal bokku ci seen syndicaliste aftu seen syndicat bopp lañ jor état lañ bokk état lañ bokk dañuy fay genn wàll gi mataguluñu dañ leen a colomotifié mooy bu ñu amal la a poñe dañ leen gaar seen oto mais amuñu seen liberté moo tax ñu gaaruñu seen oto déggoo ma bu bëggee mu saafaraw dina saafaraw parce que ñun ay sénégalais lañu ña nga ne ca jàkka ja di wàcc ay kaamil ci soo di ñaanal way faatu yi ñun ñàkk nañ ci ñaata chauffeur lañ ci ñàkk douze six chauffeur dee nañ ci ak six yi dee suñuy nijaay suñu papa lañ ban chauffeur mooy xëy pour accidenté taal otoom ngir accidenté amul ñun ay jullit lañu jàng alxuraan jàng diine li ñu xam ñu xam ko état bi ñu fi ñu xam-xam borom bi subhanahu wa taala moo ne lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa mawlana wa ni'mal mawla wa ni'mal makid doom adama al qadaru ci doomu la mais al qudra yàllaa ko yore xadaru mooy li nga xamante ni yaa koy def euh, say disposition yi nga war a jël mais xudura muy kartan geeg sottal gi nekkul ci loxoy doomu aadama ci loxoy borom bi subhanahu wa taala la nekk ñun daal bàyyi ñu ngi ci ginnaaw bàyyi alsan alsan do liñ koy dénk buñ ko woo concertation waxtaan na dem waxtaani parce que ñun askan wi ci lañ bokk état bi ñoom duñ ci sonn amuñu ci benn problème seen i kat kat lañ yor nekk seen i saali climatisé fa lañ toog demuñu fenn askan wi ñoo ciy sonn ñoo ciy loru fi dool ñi jël gendarme yi alkaati yi li ñu def fa ko teg

du yoon sax ñu laaj pièce parce que baara nañ baaraas bi oto yi taxaw nañ bu heure bi jotee nañ ubbi oto yi ñu dem dànk ci ci quatre vingt quatre millions yi lay fayloo ak di la ko forcé ak six mille francs yi mën naa tax ab ba jóg def lu mu def parce que nit ñëpp yamuñu nit ñi ñëpp yamuñu am na ñoo xamante ne defuñu ko problème mais nit doomu aadama yi ñoo yemee an naasu muxtalifuuna la wax